صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جنا بسنت يلا سبحانه وتعالى جلي تيونتي بصلى الله عليه وسلم نيجي أم بكتي أكونتانتي ci xéewal gi ñu yàlla subhanahu wa taala dottil ba ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bii ñuy amal fii ci la maison du coran nga xamante ni dañ fiy jàngat li nga xamante ni moom moo di téere yàlla bi subhanahu wa taala téere bi nga xamante ne nii luñ ci mën a wax mënuñu dépassé li ci yàlla wax te mooy inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yàlla subhanahu wa taala nee na lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwee ci alqur'anu karim dina leen ci jox solution yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni alqur'an ji bu yowmal xiyaamee dafay ramm ki ko doon jàng ak ki ko doon jàngale ak ñi ko doon déglu ak ñi ko doon topp waaye même bu yowmal xiyaamee day taxaw di seede na yàlla diw mii day danaan bàyyi ba guddi mu jug di ma jàng yàlla ni ko wax nga dëgg waaye li ci gën a yéeme yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni alquran képp ku jël def ko git dina la wammat jëme la fa nga xamante ne nii moom moo di ajjana waaye képp ku ko dumm wal iyaadu billah fa nga xamante ne nii fa mujj moom moo di safara alquranu shaafiun mushaffaa wa maaxilun musaddaq man jaalahu amaamah qaadahu ila aljanna wa man jaalahu xalfa wahrihi saaqahu ila annaar lii la yonent bi alayhi wa sallam wax mbokk yi daje bu mujj ñu ngi nekkoon ak yéen ci laaya yoo xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ciy leeral yéefar yi fii ci àdduna bu ñu leen daan wax waxi alquran fan la bàyyi ko fan la jóge bu ñu leen ko laajee li ñuy wax moom mooy dañ naan asaatirul awwalin loolu lañ jàng ci suratu naxli wa ida qiila lahum maada anzala rabbukum qaalu asaatirul awwalin laaya yooyu moom lañ nekkoon doon ko firi ci suñu daje bu mujj yàlla subhaanahu wa taala it leeraloon ci waxoon ci ñoom naka la leen di mbugale fii ci àdduna qad makara alladina min qablihim fa ata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fa xarra calayhim saqfu min fawqihim wa ataahum alcadaabu min xaytu laa yashcuruun yaakaar naa ne laa yooyu yëpp firi woon nañu ko léegi boo xoolee yàlla subhaanahu wa taala nag daa di waxoon tamit ni dinañ leen mbugal bu fii ci àdduna fii ci àdduna danañ leen fi teg ay nattu léegi nag ci laaya yii ñu war a firi tey yàlla subhaanahu wa taala nag daf ciy leeral gaa yi bu yowmal qiyaamee lan lañ fay jànkuwanteel lan lañu fay dajeel moo tax yàlla daa ci teg ni summa yowmal qiyaamati yuxzihim wa yaqulu ayna shurakaaiya alladina kuntum tushaquuna fihim qaala alladina utul ilma inna alxizya alyawma wassuua ala alkafirin yàlla subhaanahu wa taala continue di leeral di leeral ba wax fadxulu abwaaba jahannama xaalidina fiha fala bisa mathwal mutakabbirin tey mbokk yi laaya yooyu lañuy ñuy jël incha allah mooy ñi nekkoon fii ci àdduna doon rëy rëylu ñi nekkoon fii ci àdduna weddi woon alquranul karim waxoon ni alquran ay léeb la ak léppoon ñooñu bu yowmal qiyaamee nan lañ fa nekk yàlla nee bu yowmal qiyaamee dinañ leen fa toroxal dinañ leen fa gàcceel mbokk yi wallahi alazim képp kuy xeex alquran moo xam sax même nga ni ab jullit nga di sëgg ak siggi mais yaa ngi xeex alquranul karim te xeex alquran bokk na ci surtout suñu njiit yi bokk na ci xeex alquran mooy jël ay ndigalam daal di koy kale yàlla ni doxale leen nii nga bañ ni noo duñ ko doxale nii yàlla ne waxe leen nii nga bañ ni doo waxe nii yow instant boobu yaa ngi bokk ci ñuy xeex alquranul karim alquran dañu koy jàng buñ paree daal di koy jëfee bu ñu paree fexe mu daal di bokku ci dund gi ñu daal di dundal alquran kër gi koñ bi jàkka ji fépp alquran moom moo fa war a dund bi ma maana suñu mbiri àdduna dañ cee war a jël alquran daal di ko ciy dugal lan la yàlla wax mbir sàngam xew na lan la yàlla wax ñu daal di koy jëfe lan la yàlla wax ba xam dafa tere ñu daal di bàyyi moo tax yàlla nag nee na képp koy xeex alquran képp koo xamante ni dafa gëmul alquran bu ñu la waxee nga ak ah alquran ay léeb ak léppoon la wala nga sax nga gëm ni sax alquranul karim ah, ay jamono weesu na ñu ngi ci vingt et unième dañoo war a xoolaat yeneen ordre wala yeneen i mbir yoo xamante ne nii noonu la ñu war a doxalee yàlla nee na bu yowmal qiyaamee dinañ la fa toroxal summa yowmal qiyaamati bu ngeen xoolee yàlla fii summa la indi parce que fii ci àdduna dinañ la toroxal waaye tamit yowmal qiyaam dinañ la fa toroxalaat te torox tàngeeg yowmal qiyaam mooy gën a metti fuuf moo tax yàlla subhanahu wa taala di indi summa kon yéen ñi déglu bu leen jàpp ni summa jii ngeen di gis nii ci saar wi dafay tegu ni kase di déedéet gis ngeen summa ji muy summa yowmal qiyaamati gis ngeen baat bu ndaw boobu summa dafay wane ni toroxal gi yàlla lay toroxal képp kuy noonu ak alxuraan fii ci àdduna bu yowmal qiyaamee torox tànga ga muy gën a metti moo tax mu ni summa yowmal qiyaamati yuxziihim du ca yem de yàlla da di ñaawal nag ñi nekkoon fii ci àdduna doon wax naan alquran daal ay léb ak léppoon la wala yu kenn xamul yàlla da leen di ñaawal wa yaqulu ayna shurakaai alladina kuntum tushaquuna fihim da leen di woo daal leen di laaj ni leen waaye ana ñi ngeen ma daan ana xërëm yi ngeen daan jaamu yéefari dañ daan wax jullit ñi bu yemal xiyaamee comme li ngeen di wax bu fekkee am na safara dinañu woo suñu xërëm yi ñu ràmmuñu bu yemal xiyaamee nag yàlla da leen di laaj ni leen ayna shurakaai alladina kuntum tushaquuna fihim waaw tushaquuna fihim xërëm yi nga xamante ne nii ñoom ñoo taxoon ngeen taxaw fële jullit ñi taxaw fee mu am ah ak taqalikoo wala tushaquuna fihim xërëm ñi taxoon ngeen doon sonal jullit ñi sonal muhammad ba mu génn màkka dem madinatul munawara ngeen xeex ak moom badar xeex ak moom uxud def ak moom ay gazwatu ahzab lépp ci xeex ko ba mu mujj am ndam ngeen sonaloon leen rey ammar ibnu yaasir rey euh, musab ibnu umayr rey rey dem ba rey baayam ñooñu ñëpp ngeen rayoon yàlla neena bu yawmal qiyamé dina leen laaj ana xërëm yi taxoon ngeen sonoron Muhammad ana xërëm yi taxoon ngeen sonoron ñi nga xamanteni ni nii ñoom ñoo di saxaaba yi waaye tamit ba yawmal qiyam képp kuy liggéeyal alquranul karim yow mi koy sonal bu yawmal qiyaamee dina la taaj addaaj la koy laaj tushaquna fihim qaala alladina utul ilma ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين يلا نينا yàlla يوم القران في بو يوم القيامه يلا بو بوزي كيسيون بي xam nga gaa yi ñoo waroon tontu mais déedéet du ñu tontu ñi gëmoon yàlla fii ci àdduna ñooy tontu parce que gars yi dañuy rus ñoom ñu doon xeex alquran ñoom ñu jàppoon ne alquran ay léeb ak léppoon la bu yowmal xiyaamee dañuy rus ba bu leen yàlla posé question duñ mën a tontu su ko defee nag gars yi gëmoon alquran ñoom ñooy tontu qaala alladina utul ilma inna alxizya al yowma wa suua ala alkafirin bisub tey bii daal bisub gàcce la bisub tey bii bisub gàcce la bisub torox tànge la waye ñeel ñan ñeel ñi nga xamanteni ni dañoo weddi yalla subhanahu wa taala yalla nak di leral nak fi ñuy jéxalé yalla di leral gaay yi weddi alquran gaay yi nono ak alquranul karim gaay yi nga xamanteni ni bis bu jot ñu ngi def ay pexé ngir suxal islam su leen malaaka yi di fat alladina tatawaffahumul malaa'ikatu ghalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su bala إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين yàlla subhaanahu wa taala nee na nga xamanteni dañu dañoo doon wax ni alquran dal Muhammad moko ko créé gaa yi nga xamanteni dañuy calé atte yàlla yi yàlla ni ko ray nañ ko ray yàlla ni ko sàcc nañ dagg loxom nga yow nga manono fexe ba loolu jàll nga warona fexe yàlla may la kattan fii ci àdduna ba boo ci doxoon wax ci ñu applike aaya yàlla yi ci kaw suuf yow nga bloqué ko yàlla nee na consor googu bu ñuy dee su leen malaaka yi di faat instant boobu dañuy torox fa alqaw salama waaw zalimi anfusihim nag moom moo ko waral dañoo tooñ seen bopp yàlla neen gaa yi tooñul seen bopp mënoona liggéeyal islaam mënoon a jàppale yonent bi ci liggéeyam bi mënoon doxalal alquranul karim mu jëm kanam ñu daal di koy bloqué di xex islam di xex niti islam di tuumaal gor eh, gor yi di tek ci seen der lu ñaaw surtout ñi nga xamanteni ñoy nitu diine yi yalla subhanahu wa taala neena na bu len malaaka yi di fat, nga xamanteni tuubuñu ba malaaka yi ñew di len fat instant bobu nak fa alqaw salama ñu daal di torox daa di wayadi daa di daa di dootuñ tekkeeti dara fa alqaw salaama loolu lay firi ba pare nag ñu reconnaître nag xam ni ñoom ñoo juumoon waaye doomu aadama ci muusam lan la ñuy wax maa kunnaa naamalu min suu ay waay ñun liñ doon def xamuñu woon ni dafa bon liñ doon def dara amu ci xërëm yiñ doon jaamu dara amu ci loolu la ñuy jéem a wax yaakaar ni buñ ko waxee loolu dina leen muccal yàlla subhaanahu wa taala daan ni leen déedéet balaa waxoo leen dëgg balaa jii fii loolu lay firi yéen a mën a yéen a mën a kàcc waxoo leen dëgg de xamoon ngeen ni xërëm yii baaxut mais da ngeen a rëyoon balaa waaw inna allaha alimun bi ma kuntum taamaluun yàlla subhaanahu wa dafa peek li nga xamante ne nii moom ngeen daan def li ngeen daan wax yéen a gënoon a tey yéen a gënoon a xam ni xërëm yii ngeen di jaamu baaxut waaw ba tey jii ci àdduna da gis ko topp ay xërëm di ko jaamu moom leer na ko nii lii muy def baaxul léegi nag yàlla nee na ñooñu bu yowmal xiyaamee wala sax avant yowmal xiyaam bu ñu tëddee ci lalub sukuraat dinañ xam ni liñ doon def baaxul mais dañuy jéem a nax yàlla naan ko ñun xamuñu woon ne liñ doon def baaxul yàlla ni leen balaa waxoo leen dëgg déedéet bu leen wax loolu de loolu kay bu leen ko waxee sama kanam man yàlla <laughs> inna allaha alimun bima kuntum taamaluun ba ci yow miy def lu bon par yenn nga dama dem ba xam ne li ngay def nii baaxut benn instant bu ñu la jàppee en général fii ci àdduna da ngay gis koo xamante ne dafay def ay crime buñ ko jàppee mu ni moom xamuloon wala mu kenn ku nekk ci fenn di fa liggéey di am lu mu fay def loo xamante ne dafay gàttañlu ba bis ñu daal di koy jàpp mu daal ni moom xamuloon ne affaire yi nii la demee ñu ni ko non non yow yaa ko tey li nga def nii yaa ko tey parce que xam nga ni lii ak lii boo ko defee lii moo la ciy fekk Fi ci mbiri aduna doomu aadama day def loolu nekk ci mbir waroon koo doxal normal doxalu ko normal ba bis ñu daal di koy jàpp mu naan xamul woon noonee mu amee ci suñu mbiri aduna nag bu yawmal qiyaamee yàlla subhanahu wa taala nee na doomu aadama yi doon jaamu ay xërëm doomu aadama yi gëmul woon alquran toppoon seen bànneex yi ba kenn aha bu leen malaaka yi di faat loolu la ñuy wax nan xamuñu woon ni ah wala ñu dem ba yawmal qiyam jakarlu yalla naan xamuñu woon ni xërëm yi baaxul yàlla ne balaa waxoo leen dëgg déedéet <laughs> inna allaha alimun bima kuntum taamaluun su ko defee nag ndeysaan instant boobu nag ah lan moo ci des lu lu ñu fay leen parce que liggéey nañ ku liggéey bu weer wi de dañ lay fay wala déet bu yowmal qiyaamee képp ku nekkoon ci àdduna li nga fi liggéeyee dinañ la ko fay ñoom nag comme que dañ doon xeex alquran comme que gëmuñu woon alquran dañoo jàppoon ne ay naxasa kandang la wala ay léeba gi léppal la leen kaay leen fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin yalla subhanahu wa taala neena ñu dal leen di jël dal leen di fotong tak leen ba ñu dëgër ñu leen ay wa dugg leen bir jahannam waaw ba pare bu ngeen fa duggé da ngeen fay sax khalidina fiha yalla dal di jeexale laye bu daw yaram bu mu dal ni fala bi'sa mathwal mutakabbirin aka ñaaw aka bon aka Yes, mujuk gaa yi ñu nekk fii ci àdduna di réeréelu bañ ni duñ topp njàngalem yàlla duñ topp alquraanu karim fala bi sa maswa al mutakabirin seedu mujj ak a ñaaw maswa bi maanaam mawaa fa ñuy mujj ak a ñaaw mujj gu ñaaw lañuy am te mooy képp kuy noonoo ak alquran ak képp ku gëmul alquran ak képp kuy xeex kuy dundal alquranul karim ak képp kuy xeex islam ak njàngalem yonent bi sa sam mbokk yi laaya yii nag bi ko yàlla subhanahu wa taala jeexalee dafa def lu ñuy tudde al boo jàng balaaxa di nga ko jàng muqaabala mooy wax na gaa yi noonu ak alquran gaa yi xeex alquran ak fa ñuy mujj léegi nag yàlla day ñëw nag ci gaa yi gëm alquran ak gaa yi koy dundal ak gaa yi koy liggéeyal ak fan la ñuy mujj insha allah tabaraka rahman émission bii di ñëw ci laay yooyu la ñuy dugg ak yéen yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala defal dégg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhaanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci liggéey bi waaye tamit di jaajëfal la maison du Coran nga xamante ne nii liggéeyam yépp mooy jàng alquran ak jàngale ko waaye ak fexe ba mu jege nit ñi ba ñu xam lan la yàlla subhaanahu wa taala wax yàlla yàlla dafa dégg topp wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu C'est une qualité donc daw C'est Bashir House Bashir House di boutique d'ameublement bo xamni day jox sa intérieur caractère waaw waaw suñu meuble yëpp ña ngi ko importé Égypte dinañ la jox tamit salon Louis XIV l'altera moderne triangle wala le Louis cocktail ah lol dina rafet ci salon wala ci chambre à coucher royal ah fu mu moderne gën fa classique fofo baax salle à manger table à manger wala bok ay meuble d'appoint ay console royale 100 bois rouge conçu minutieusement finition bala ligue finition bala ay moquette yu mucc sais yo xamni ñinga bayé nga Iran yi ko Égypte yi ko Turquie yu am grande finesse ak ay beauté yo xamni MashaAllah yu taru lol amnañu ay housse pour fauteuil am ay matelas amnañu ay tableau décoratif yo xamni MashaAllah amnañu tamit ay jardin yo xamni gazon la wala synthétique amnañu ay moquette pour jàkka ay moquette pour couloir ay matelas ak ay oreiller orthopédique xana ñoo